yaakaar naa ne ñëwoon nga aéroport taxaw sa rak sa xarit sa lépp doyatul nga jóge foofu tey nga ñëwaat ci kër gi yan relation am ba tax nga def ñaari sa suy rafet yoo xam kenn dootu ko fàtte waaw di wax encore rek inna lillahi wa inna ilayhi yàlla na ko yàlla yërëm xale ko aljana comme ni ñu ko daan waxee rek suñu rakk la bu bokk dëkk parcelle bokk lu yàlla na toog muy làmb mu doon nit ku baax ku sedd ñëpp sedd ko ci moom yàlla jël ko ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana njaboot bi yàlla may leen xolu yàlla féete incha allah lan nga ñu mën a wax ci Ramdan kon ni ma wax rek nit ku sedd la woon ku daloon amul woon benn problème kenn dégg ci moom wax ju ñaaw ba tax na loolu la ko ñëpp di seet te ñu nit loolu lañ gis ci moom ba tax na dañ ko ñaar rek incha allah daal yàlla yàlla xaaral ak ñu déggee mbir mi lan lan nga yëg. waaw am na lu bett rek ñuy wax lu la bett mu ne la. feebar bi yëgoon naa ma noonu toll na fenn fii quoi. Mhm. yëgoon naa ko fii foofu ma noonu toll na fenn fii. loolu damay jógee aéroport rek ah. woo ma. ba dafa dégg nouvelle bu naqari ma ne ko la. mu ne ma raam lañ ko lañ ko tàggee ma ne ko lay wax nii noonu lañ ko yëgee mu bett ñu lool waaye nag ñun yàlla moom moom bu soxlaa ko soxla ñàkk. Mhm. amul bis amul heure fan la naka la moom saa yu ko neex lay jël jaamu. ba tax na dañuy ànd ak moom ci ndogal gi rek te koy ñaanal. yàlla na xaaree ko àjjana incha allah. kan ngeen mujjee déggante yéen ñaar. non wax dëgg nag daan nañu déggante bu bëri. nag wax dëgg yàlla amoon nañ ay relation nice ñu suñu combat loolu ñoom xam na day ñëw ànd ak ñoom góor ay ñoom garde loolu ñëpp ñu ñëw jàpp ci comme ni koy defee parce bu baax daal wala am seen seen diggante lan la ba tax keroog nga ñëw aéroport toog fa temps bu yàgg taxaw di ko xaar tey nga xëyaat ñëwaat fii waaw diggante jullit ak moromam diggante yàlla boole ñu luñ bëgg muy muy muy muy muy làmb ba pare ñu bokk dëgg parcelle encore làmb comme na wala xam ne dañ daan jàppalante. jàppante nañ ko daañu ko benn ñaar. yàlla daal bu ñu boole woon lu ñu lu ñu bëgg daal mooy yàlla loolu la nga xamante ne ba pare moom ñun góor a ñoom bas ñun ñooy nekk tout le temps te ay xarit lañ woon. waaw vraiment. xam na daal loolu la famille bi ak mère bi aussi. waaw yàlla yokk leen xolu muñ rek te ñu dëgëral bu baax a baax parce que yàlla moom moom leen koy jox tàggul buy jël tamit du tàggoo. yàlla moom. sant waaw ndax sant rek nga ci mën a def ndax daal ñu ngi yàlla yàlla yokk leen xolu muñ euh, féete leen fu mu yàlla féete fu mu leen féete incha allah jërëjëf di wax ak moom guddeeg bëccëg barki Serigne Salim Mbacke may ñibbi si yëgu ko mu jékki-jékki kenn woo senegal fii téléphone ne ma ne daan euh, Ramadane moom boole ak yow billaahi wala ma xool sama téléphone ma xaar ak ma woo ko mu ne ma sama grand ba nga ñibbi rek maa war a tàggu rek maa war a tàggu ñoo leen koy jaale yéen ñëpp ñoo leen koy jaale waa parcelle yéen ñëpp yàlla sa yàlla ko yàlla xaare àjjana yàlla ko yàlla xaar yéen ñu fi yàlla bàyyi yàlla fi yàlla yàggal ngeen nekk fi di ko ñaanal amin voilà yow jantal mel yow ama problème nit ñi ñooñu jaxase la yow su ma rak yow kenn mënu ma non loolu mënta ñàkk yow yaa may tooñ léeg-léeg yow defal nga ma fi teraanga defal nga ma fi teraanga defal nga ma fi teraanga man du ma fàtte man du ma sakk jëf lu ma la mënta wax ma tey wax la ko sama rakk nga sama frère am naa droit bi may bëri xaalis bi 2007 loo ma waxul amul loolu du dara sama rakk nga keneen du la ko wax li ma la keneen du la ko wax yow keneen si mu la taxaw yow di la man maa ko ñi may wax maa la koy wax waaw yow lay jaale booy bu baax a baax yow su ma rakk nga suma xarit nga ci kaw ci kanam jërëjëf jaajëf champion képp kuy def te defoo ndax ngisal mm. suñu borom na la ko fay waaw te am daan léegi rek maay wax ak ñaar mm. mu ne ma doon jékki-jékki sax génnee benn un million tas ko ci gaa yi xam ne ne gaa yi fu mu toll ni seen seen laab tooy na xam loolu dafa jafe te loolu léegi lañ koy soog a yëg su ko woote wax fenn waaw ba parce gis na ne ñu mu doon sekkal mm-hmm. comprendre nga ñooñu mm, moment bi seen loxo jotu seen ginnaaw mm-hmm. kon ñun dañu soxla façon nit yu mel noonu mm-hmm. vraiment man su may toog di gis famille Ram. Mhm. sama xol day tooy. wallaahi. de même que xa doomu ndey Moussa Balla Gaye mhm, mu nekkoon ay xale yu ndaw yoo xamante ne. booy judduwuñu da teel a génn àdduna. mu nekk lu metti sa loo xamante ne. suñu borom rek moo ko mën. yàlla rek moo ko mën. wallaahi lu mhm. metti boo xamante ne dafa ñëw écurie bi dafa egsi rek ah yàlla ubbil ko fi. mu am fi ay ndam ah jël fi galaa comme li nga wax déedéet war a war a war a dem yéeg ci kaw mu gis ne vraiment euh, war na mën a def leneen lu gën a am doole loolu lu gën a mën a dimbali fayam mu dem def ko ba tey lii fekku tey ñun ni yëpp def ñu bett man ba léegi yëguma feebar raam fenn dese dem laa yëg mu nekk lu metti lu ma metti wallaahi ma duggee ci biir mënu ma xool yaayam yaa ngi metti na daal ba fi metti yem mais dañuy def loolu ñaanal ko rek la ñu mën def xam ne suñu borom bu bëggee ñëppay ñàkk ñu ko denc sori na torop mm-hmm. waaw vraiment nekk na loo aussi loo tamit lu metti la mm-hmm. xam nga jege woon dinañu gënal torop aussi da ngay dox rek dem ñaanal ko billaahi walaay taala mais dañuy def lu dul dañ nañ ñëw moom foo ko ñaanale rek mu yegg foofu noonu mm-hmm. vraiment mais en tout cas daal xaw ma lu ma ci expliqué. lu dul parce que nit bu génnee àdduna bees bees bi nii neex na. ama mais bu yàggee mooy problème bi. ni bañ ko waaw parce que euh, bu génnee àdduna. bàyyi fu bàyyi fi bàyyi fu njaboot. ah ñi ñu fi ne bàyyi fu doom. leer ñi ñu fi nekk nii rek ñoo ko mën a bàyyi xel. am na sama xarit yi génnul àdduna il y a vingt ans vingt cinq ans. damay jékki-jékki rek ñaanal leen to cheikh bi loolu il faut ñu ci bàyyi xel benn pas dafa ma netti dama toog benn dese ñu nettali benn xisa ne maire bi da doon toog euh, euh, à pas bi yàlla dafa mayoon dafa may jóor yàlla yi dañuy xam li xam ci li nekk ci armère yi am na ndaw soo xamante ne dafa toog xéwali wér ko mu am benn jalu yiw maanaam ñett ñetti xuloo axat bi ñu sànni woon mu nekk jalu yiw ñu ñi eh, yeneen néew yi daw di ko xëccoo di ci dundoo ndax xuloo yooyu moo leen dundal mu gis maire bi maire bi demu ca mu toogaat ay ay ay cent mu rombaat gis maire bi beneen jàll yu ñëw mu daw di ko xëccoo mhm. mu laaj ko ne ko jamono dama fi romboon eh, jàll yu bi yow bokkoo ci waaw lu tax nga neem di xëccoowaat jaw yi ak ak ñeneen yi mu ne sama njaboot boobu dama nekkoon ku bees génn àdduna waaye léegi fàtte nañ ma maanaam war nga di ñaan bay ñaan say maamaati maam yoo xamul mm-hmm. parce que dañ leen di fàtte te fàtte bi ñu leen di fàtte bu nit rombee ci armeel def ñetti xuloo rek mm-hmm. ñetti xuloo yi moo leen dundal te ñaata yoon nga romb ci armée mel ni ku leen gisul mm-hmm. te yàgg-yàgg da ngay dem ci armée yooyu noonu yàlla na yéex donc lu jar a bàyyi xel la man li may wax c'est le futur mooy raam lu muy yàgg yàgg bu ko xel yi fàtte lu muy yàgg yàgg bu ko xol yi fàtte lu muy yàgg-yàgg jërë nga fàttali njaboot gi mm-hmm. di ko bi ñu koy na ñaanal ak képp ko ne génn na àdduna mooy di seen maamaati maamaati maam leen bàyyi xel loolu ma mm-hmm. loolu rek laa ñaax ndax bees bees bi nii neex na mm-hmm. metti na nit ñi di daw di di di ñaan di def mais fàtte bi bu leen ko fàtte bu leen ko fàtte rek mu wér ci bàmmeelam waaw bu leen ko fàtte loo fàttali ko parce que dafa jóge école de lit Mor Fadam bàyyi fi écrit yëpp ñëw sa écrit dóor dóoraat nga tàggat ko bi muy xale lan nga ko ci moom loo xam ne marqué na la. non li ma marqué si moom mooy li ñëpp wax mooy yar. raam foo gisee bëñ yi bëñ yi ngay gis muy reetaan ba ma nga xamee ba léegi raam mosuma gis fu mu mere dama ko ñëw mën na ko yow yaa guy gi da nga nuroo loolu laa koy tooy chaque jour yow da nga nuroo guy moom rek laa lay xoolee wallaahi mu nekk gis nga guy gi kenn gënu ko dama ci seet ndaw si moom rek keroog sama papa bu génne àdduna moo fa jiitu gis nga mëri kenn duñ si ay noonu barke alxuraan gars yi seen xol dafa rafet te koo ci gis dafa war a nekk dara moo tax mu nekk mbër mbër c'est pas donné à n'importe qui tey ay champion ñoo fi ñoom mobile hmm. gars yi ay champion ñoo fi toog di gërëm nag équipe dóor dóoraat bi yëpp hmm. sa gars yi ci ginnaaw lu ne seq ñu ko seq nañ ko ak ñaa hmm. ak ak ak raam daan yaa ngi dégg kon gars yi li ma leen di ñaaxal rek mooy ah ñi ñi ñiy bàyyi xel aussi ci sant bi daneen dem di xool seen yaram yi surtout waaw parce que nekk na loo xamante ne ah, Eh, feebar yi bett tamit mën na indi yu mel nii. Mm. waaw ku ciy waxtaan temps yi sax dañuy waaj ay journée de sensibilisation pour ñuy dem di di di di di di teel a prévenir yenn feebar yi. waaw métti na nag quoi. wax dëgg yàlla dañu bëgg rek mu gëj fii mm. yàlla na fi gëj loolu dee mënul ñàkk waaye ñi fi nekk ñi fi des mm. yàlla na suñu borom guddal seen fan lool ba relève bi nga xamante ne bëggoon na ko eggal ci maire bi ñuy des yàlla na ko yàlla def ñoom ñu eggali ko waaw loolu rek laa waaw